ci bulughul maram min adillati ahkam tey nag ñu war a jël suñ juróom ñeenteelu dars comme ni ma koy waxee rek ñi topp enregistrement bi waaye ñi nga xam ne dañuy teewee dar bi moom sori nañ léegi daanaka jàng nañ lu mat téeméeri xadis ak juróom benn fukk ak nangam ñu ngi ci kitaabu sola amma enregistrement yi ñu ngi ci ba tey kitaabu tahaara ci bunt bi nga xam ne mu ngi ciy jàngale aniyatul kuffaar maanaam ndab yi nga xam ne xéeféer yi dañ koy jëfandikoo ana lan la ci shariatu l'islam ya wax mu aju ci julit xadis biñ ci ñëk jàng nak moy xadisu abu saalabat al xushani عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها حديث بو كي كون نتالي جلي تي بي صلى الله عليه وسلم موي صحابي بتدو ابو ثعلبة الخشني mom nak نتي na ci sahaba yi nga xamne fekke lim solo ci xadis ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama bëri na lool dinañ koy woowee abu saalabat alxushani yi wala ñu koy woowee jursum ibnu nashib wala jurhum ibnu nashim yooyu yëpp dañ ko koy woowee kon turam dañ cee wuute wax naa la léegi ne bokk na ci saxaaba yi fekke sulxul xudaybiya jaayante woon na bay'atul ridwan yonent bi sallallahu alayhi wa sallama joxoon na ko ak sëxmu ci xaswatu xaybar maanaam joxoon na ko cër niki noonu bokkoon na ci saxaaba yi nga xam ne teewoon nañ xare bi ñuy tuddee xunay xeetam nag moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni woon ci ñoom mu ci lislaam bañ gëm moom ku siiw la ci saxaaba yi ci kunyaam bi ñuy wax abu saalabata an naqshaay an naqsha bi moom nag comme ni ma la ko waxee turam borom xam-xam yi wuute nañ ci waaw waaye li ci gën a siiw mooy Jursuum am nañu wax ni Jursuum ibnu Amr waaye nag Abu Bakr ibn Abi Shaybata moom sax wax nani ni waa ji tuddul noon yëpp waaye mi ngi tudd Laashir ibnu Xumayr kon turam daal wuute nañ ci ci wuute yu baree bari mi ngi génn àdduna ci xilaafa ak muawiya ibn abi sufyan ñenn ci ulama u siira ne juróom ñaar fukkeelu at ak juróom ci gàddaay gi ci ayyaam abdul malik ibn marwan ci la génn àdduna bokkoon na ci ruwaatul xadiis solo na ay xadis yu limu ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu saxaaba yi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam solo nañ ay xadis ci moom ku mel ni Muaz ibnu Jabal ku mel ni Abi Ubaydat ibnu al-Jarrah ku mel ni Abu Idris al-Khawlani ku mel ni Jubayr ibnu Nufayr ku mel ni Abu Raja al-Attar Ataridi wala Utaridi wala Abu Asma al-Rahbi سعيد بن المسيب ñooñu ay taabi'i lañ abu zahir zahiriya makxulul huzali ñi ñëpp waaye nag makxulul huzali am nañ sikki sàkk ndax déggee na ci sëriñ bi wala déet am na ay xadisam yu nekk ci saxihu buxaari ak saxihu muslim yu rot ci yoonab rabiat ibni zayd kon kooku kenn la woon ci ñi nga xam ne ñu ñuy topp lañ ci lislaam moom nag moo nettali xadis bi ne yonantu bi sallallahu alayhi wa mu ne dafa am mu ne ñun dañoo dikkal yonantu bi sallallahu alayhi wa ne ko yow mi yàlla yoon ñun de ñu ngi ci suuf ak ahlul kitaab ndax mën nañoo lekk ci seeni ndab mu ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ne in wajadtum gayra aaniyatin su ngeen amee weneen ndab wala yeneen ndab yu bokkut ak ndabu ahlul kitaab yi na ngeen ci lekk bu fekkee fala bu amuleen ko nag ah fa in lam tajidu faghsilu wa kulu fiha bu ngeen ko amul na ngeen raxas ndab ndab yooyu bañ set ngeen yekk ci seen ñam ta lekk Buxaari ak Muslim solo nañ ko waaye lafz bi ñu jàng Tirmisi moo ko indi ci sunanam kitaabu zabaih ci buxaari aniyatul majus fala ko indi muslim indi ko ci baabu sayd abu daawud awaxirul atima maanaam ci jeexitalu téeréem kitaabul atima tirmisi yi noonu ñoom ñëpp solo nañ kon nag abu saalaba mi comme ni ko waxe saxaaba bu siiw la xadis bi ñu jàng abu daawud imam ahmad solo nañ ko waaye am ziyaada buñ ci def ziyaada boo xam ne dafay leeral sab li sabab laaju abu saalabata bi mooy lan boo demee ci sunanu abu daawud dafa ne an abi saalabata alxushani annahu sa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال إنا نجاير أهل الكتاب منيكو مني أبو سعلبة دفا ني لاج نا يونن تبي كون موم موي اج لاج ني يوم يالا يوني نيون دي دانيي دكالك أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير يوم نيغي توغو سي سين تين يا ويشربون في آنيتهم الخمر سين كاسيا دانتي نان سانجرا ci la yonantu bi tont sallallahu alayhi wa ne fa in wajadtum xayraha fa kulu fiha washrabu su am ngeen leneen lu dul yi na ngeen naan ci ngeen ci ci yooyu maanaam ci ngeen am yu bokk ak ndabal ci xéeféer yi bu ko defee itamit ngeen lekk ci ndab yi ngeen am yu bokkut ak ndabal xéeféer yi mu wa in lam tajidu gayraha farxaduha bilmaai wa kulu washraw su ngeen amul yeneen ndab lu dul yu dul ñoom ahlul kitaab yi ñuy jëfandikoo na ngeen ko raxas bam set ngeen lekk ci tanaan ci muy lu am solo li ñu njëkk jànge ci xadis boobu mooy xadis bi dafay leeral ni yonent bi sallallahu alayhi dafa tere ñu jëfandikoo ndabal ahlul kitaab moytandiku di ko jëfandikoo su fekkee am nañ beneen bu dul moom léegi nag su fekkee mënta ñàkk dañ koy raxas soog koo jëfandikoo nga gis ni nag abu saalabata leeral na illa bi mooy dañ ciy togg yàpp mbaam te dañ ciy naan sàngara loolu tamit dafay tegtale ni ñaari yooyu ay sobe lañ jumhurul ulama ñoom atte nañ ni sàngara najaasa la maanaam sobe la waaye nag ku ñuy wax rabiat ibn abdurahman ak boroom xam-xam bi ñuy wax lays ak ñenn ci boroom xam-xam yi wax nañ ni sàngara du sobe waaye lu laab la li xaram ci sàngara mooy ñu naan ko waaye jëmmi sàngara du wut sobe bañ ko waxee ñu laaj leen lu ci seen tegtal ñu ne sahabatul kiram ba aaya bi xaramal sàngara wàccee dañoo tuur sàngara si ci mbedd madina yi su nekkoon sobe yonent bi sallallahu alayhi wa dina leen tere loolu comme nim teree kuy faj xaajoom ci digg yoon bi wala ci ker goo xam ne nit ñi dinañ ci seerlu kon sabab ak tere bi ci kuy faj xaajoom ci digg yoon bi maanaam bañ fa def sobe su mayee ñu mën koo tuur nag ci mbedd mi loolu day tegtale ni duwut sobe ñu dellu waxaat ni amul benn texte ci alquran wala ci sunna bu rot buy wax ni sàngara sobe la ah ñu ne leen aaya bi dafa ne rijsun min amali seytaan ñu ne waaw d'accord nañ rijsun min amali seytaan rijs maanaahu al muqtadir walaysa najis anam lu tim la rek waaye du lu sobe sobe ji nga xam ne contraire moom mooy laab kon nag ñoom loolu lañ gis جمهور العلماء نيوم دانيو واخ ني سانغارا صوبلا سن تكتل موي انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سانغارا كات غوري يو يب صوبلا جو خامني سي شيطان لا جوغي نين كو باي ngir ngeen mën a texe ñu ne ñoom wajhul laal ci aaya bi mooy suñ boroom dafa xaramal sàngara xaramal bu métti ba taxi yi ñëw def ko muy sobe digle ñu bàyyi ko kon loolu tegtale ni sàngara najaasa la ñaareel bi mooy xadis bii ñuy jàng abi saalabat al xushani radiallahu anhu dafa wax mu leer nañ ne kat ñun ñiñ fi fekk dañuy lekk yàpp mbaam di naan sàngara ndax mën nañoo jëfandikoo seen ndab yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne raxas leen ko su nekkutoon sobe kono yonentu bi sallallahu alayhi du digle ñu raxas ko kon loolu tamit lu ñu mën a jàpp la soo boole wax yépp dangay gis ni li gën dëgër mooy mazhabul jumhur ñi wax ni sàngara sobe la ñu lu tax ñu ne li quwati adillatihi wa li don fil muxaalifin foofu nag am benn jafe-jafe bu ci am muy alcool alcool par exemple comme parfum bu am alcool ndax dafay dagan wala dafay xaram tontu ci loolu mooy ci riwaaya abi xanifa dafay wax ni an najasatu tusbitu lil xamrati wal fi xaalati shurbiha kon parfum bu am alcool dina dagan ñu jëfandikoo ko ci ay ci yaram ci ay yére waaye nag dafa xaraam ñu naan ko mu ne bu fekke ñu koy eh, amma ida stamalat ida stumilat fi garadin mubaaxin fala takunu najisa suñ ko jëfandikoo ci mbir mu dagan comme parfum boo xam ne da koy sotti si sa yére wala lu mel noonu dagan na loolu dagan na loolu mooy gis-gisu xanafiya yi kon loolu benn la ñaareel bi shafiiya ñoom sukkandiku ci xadis bi nga xam ne dafay sib jëfandikoo ndabal yéefër ki noonu noonu lañ sibee jëfandikoo seeni yére ndax sobe ngay moytandiku ci ñoom mu ne soo demee nag ba ndab loolu wala yére yooyu wala yooyu yëpp wóor na ne lii set la lu laab la amul dara la tere pour nga jëfandikoo حديث بستوب موي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عمران بن حسين دفنت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تودأوا من مزادة امرأة مشركة مومنك سيدنا عمران ibnu Xusayn radiyallahu anhu bokkoon na ci saxaaba yi nga xam ne yi tamit ay solokatu xadis lañ saxaaba yi nga xam ne lislaam ak jullit ñi amel nañ leen njukkal moom ak bayam Xusayn yëpp dugg nañ ci lislaam ak Abu Hurayrata ci même année ci benn waxtu muy juróom-ñaaru at ci gàddaay bi ci atum xaybar Makka la juddoo amoon ay doom ku mel ni Muhammad ibn Imran ibn Husayn Taliq ibn Imran ibn Husayn Nujayd ibn Imran ibn Husayn muhaddis la ci bani xuzaata ndax boo toppee askanam da nga naan imran ibn husayn ibn ubayd ibn khalaf ibn abd nahim ibn salim ibn radira ibn sadul ibnu xabashata ابن سلول ابن كعب ابن عامر ابن ربيعة ابن لحي ابن حارث ابن عامر ابن عامر عامر بوبلني دكنت لي أبا نجيت كون من فمي بوبلا بوك mu amoon dayo bu kawe nag ci lislaam ak ay ngëneel solo nañ jëlee ci mutarrif ibn abdillah ibn suxayr mu ne imran ibn xusayn daf ma wax ni in alladi kaana inqataa anni qad raja yaani taslimul malaayika malaaka yi dañ daan ñëw di ko nuyu mu toog ab diir gisatu leen ko ñi daggoon sama digganteeg ñoom dellu si ne imran ibn xusayn ku yàlla gërëmoon la ndax ku dëgg woon la ku dëdd woon àdduna la niki noonu ku fegu woon la ku jeexoon ci bëgg yàlla ak topp yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa kon moom saxaabi la woon xam ne saxaabi yi ay royuwaay leen waaye rawatina moom imran ibnu Husayn kon nag moom mooñu ñu nettali hadis bi lan la ñu jàngal daf ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika ñi ngi jàppoon ci benn mazada Mhm. mooy ndab ndab loo xam ne dañ koy defaree der ndab loolu nag genn jigéen boo xam ne bokkaalekatu yàlla la woon moo ko moomoon bi ay saxaabaam jàpp nañ ci loolu li muy tegtale mooy dafa fekk mu laab su laabu toon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama du laab kon liñ ci mën a jàngee ci xadis boobu mooy taharatu aniyatul mushrikin wa misluhum ahlul kitab seen ndab bu fekkee amul dara lu sagan di bañ laab na waaw loolu mooy li jumhur dëppoo raxas bi ñu waxoon nag ci xadis bu njëkk bi loolu ixtiyaat la rek ñaareel bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy njàngal alquran alquran ni innamal musrikuuna najas loolu du xissi waaye maanaa la ñetteel bi mooy der saa yuñ ko wullee laab kon suñu yoon nekkul ci ko moom ak ci ko moomut loolu am solo la kon suñu dars tey foofu lañ koy yemale allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi lima ughliqa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المختار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين